xale dañuy mën a jaay moom na préparé boppam ah man de man maa ci man de gis naa ko ci mëlëte <laughs> waa waat kaa bi ci kër bi nag takk masque de laamatu laal bi tamit loolu tamit wax ah, baax waa léegi itam xale yi jël nii xale fan ndaw yi ëppul mënat mënat itam mënat yi tëj jàmba réer caabi daa tuuti daa ndaw. daa ndaw léegi ko saxee mën na ko wax. ah mais caabi ji da nga koy teg foo xam ne boo gëstoo yem ci moom mënut sa jëkkër xam nga ne caabi ji du. soxla aywa lii la xewal na yaay maa ngi ma gën a neex dee bi. tere lañ neex Aïcha tegal tere lañ dee bi <laughs> kanam. dee bi tere lañ tegal. da nga am duggaale waaw dama damay ñëw. yaa joo xale yi seen jóge tey bu ñu ñëwee duñu taal lamp lamp yi lañ def def dina de chandelle mhm, yi la ñuy ci biir kër gi. kër gi neex lii ñëpp ko bëgg góor ñi naan bëgguma Saint-Valentin sax wala boo leen defaree surprise. def ko day neex seen ñu bëgg ko. dañu 25 ans 30 ans Aïcha. Mhm. ba ngay sëy yii yëpp xewul. xewul woon amaana dëgg la waaw. wan sa jëkkër ne ay bagages yu bees génn na. dëgg la nga defaraat lépp. dëgg la moom. di jël jël li ñu naan tuubaat tuubaat tuubaat tuubaat tuubaat sa ah. ménage. farma cawaat yëpp defar ba mu baax. Sénégal xool ay dañoo jógee dëtte par décoré ko. décoré ko nga sangu ba set. Mhm. reer bi ñëw. tey la dëkk bi di yëngu. nga taak reer ngeen reer ba suur waxtaan. yooyu dëkk bi lu mu nar a yëngu nii te bokk ma ci aw ma xam ne lii ma daax li ma metti yërëm naa leen. <laughs> ma ne ko ci yërëm naa leen. ba pare xale jigéen ñi dañoo am feem ren. Hmm. xam nga cinq décembre dañuy génne chemise suñu petit pois noël bi chaque femme nañu génnee. du dëgg dëgg boobu de consultation la. Hmm. consultation hmm. ah waaw yàlla baax na. ok moom su ma paree dama la koy offrir rek nga may mayoo ma may ko ci yàlla. may nax de waaw ah, dama la koy offrir. ëpp eh, na tegal ma ko noonu. waaw xale yi de bii lañ génnee nii. jox ma ko mën sol. sage femme bi. am na femme da lañ am na lépp. am na barette ak lépp am na waaw. te ah, yow instant boo defee sage femme ba def sa barette. ah li ma war a tëddund yi tey métti na ma de. maa sa balaa déwén nag yal na leen yàlla. allahumma amiin waay naa mën leen yor amiin waay mën leen yor. ndax dara sëy nag. xale yi tendance lañ ko def. te dañuy toog te duñ jóg. di sëy li muy neex neex yépp mm-hmm. noonu la amee lu ciy métti. dëgg la yaa de ooyee baax. chaque jour lay neex te xale yi dañ